le le 9 juin nag euh, soxna si. drapeau docteur Macoumba Diouf maire Lat Mbengue Tyson 2 francs arène nationale ak Equivox. dé déggal loolu waaye sëriñ bi kon nag jouru jouru sama frère lay doon. sa appel loolu képp kuy Saalum Saalum na génn. Saalum Saalum yi aye nañ waaye Sénégal moo aye parce que Macoumba il est national foofu laa yem nag. le 9 rendez-vous n'a pas bi damay ñëw woo waa woo ñëpp ñu ñëw. madame Diouf a ngi nii madame Diouf boo d'accordee ah Sorano kenn du des de bu dee d'accord nga nag maa ngi woo ñëpp nag di woo artiste yëpp nag du ma artiste dama nekk si milieu culture bi di si liggéey depuis 2003 euh, ba léegi moo tax nag ma bëgg nag bu sama nit xew lee ma woo ñëpp ñu ñëw kon bu leen dara la neuf nag woo naa ñëpp na ñëpp ñëw. waaw boobu moom boobu moom nekkatul waaj sax mais dañu pare. xam nga boo ne la neuf di ne drapeau tudd sama jëkkër man loolu dafa nekk euh, lu sori ci man ndax dama nekk promotrice de lutte international nag ah donc boo waxee làmb rek tudd sama jëkkër dama ciy kontaan ma gis sama bopp moo tax nag da ngeen gis la fa li ngeen fa mësul gis le neuf maa ngi woo ñëpp. bonne chance incha <laughs> allah maa ngi ñaanal nag sama borom kër. yal na ko yàlla jàppale taxawu ko waaw gis ngeen mu ngi nii waaw waaye xam naa ni uh-huh. eh, ñàkkul comme sport bu ma bëgg la te def nañ ma Equivox sagale nañ ma loolu rawat na muy ay doomu Saalum ñoo koy organiser nekk ay jeunes yu aussi yoo xam ne espoir lañu ci sportu Sénégal fan yi rek maa ngi doon def benn daje ak ñoom ñoom euh, mbër yi pour lu jëm ci wàllu ñu dugg ci mbéy ak yooyu kon damay kontaan ci xibaar boobu di ko rafetlu di wax ne nag ku ma am ku ne commencé ko ci yow mii Babacar ak Sadio mii ak mboolem ñu fi teew bés boobu bugg naa nga fekkee si ko ndax du forcément en lamb rek moo ko tax a jóg. mais façon gunge la bu jeunesse su suñu réew ci lu jëm ci wàllu tekki ndax xam nga dañ li ñuy defi noonu du cawarte dong moo tax ñu koy def dañ ciy daani seen doole pour am lu ci ruuse ñu jël ko euh, euh, terale ko seen njaboot kon nuñ fa gën a baree mbir mi gën a woom mu gën a doon njëriñ ci ñoom nekk njëriñ ci promoteurs yi nekk njëriñ ci écurie yi nekk ci njëriñ ci waa axlu làmb kon daal maa ngi fay woo eh, ñëpp eh, bu ko kenn eh, manqué jërëjëf